عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki internet yi nga xam ne ñu ngi suivre ci Barham Universel Media TV ak ci Malben TV euh, ñu ngi ziare ñëpp leen ndokkeel si àjjuma ji euh, tey jii ñu doxantu woon ñëw si zaawiya euh, Mawlana Cheikh Al Islam El Hadj Ibrahima Niass fii ci jëppal ñu gën ko xam ci kër ba kër baay jëppal euh, ñu fiy defee xadratu juma ak wasifa yi bés bu yàlla sàkk di def euh, tamit yu bëri julli waxtu juróom yi tey ñëwoon gis imam bi waxtaan yi moom waaye waxtaan bi am amtuwul tey am nañ ay fidèles yoo xam ne fekk nañu Babacar Tall moom fekk nañ ko fii ci zaawiya bi dafa ñëwoon euh, gannaaw bi information bi jàllee te moom dafa demoon xëy ñëw bi mu jullee jumaa pare comme waxtu mu jot quotidiennement di ñëw fii mu ñëwoon fii pour euh, wasifa bi ak xadara jumaa sëriñ bi ñëw nga fii waaye gis nga ne dañoo tëj zaawiya bi ah, alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullah ñun nag fii lañ dëkk ñun chaque jour fii la ñuy defee wasifa fii la ñuy xadra te biñ ñëwee itam fekk fi ndigal yi itam ah, dañ ci topp rek ndaxte itam kilifa yi lu ñu wax rek ñun amuñ ci baat buñ ci warate te ah, mu wéewuñ lu mooy ndigal comme kon nag si kilifa yi joxe nañ ndigal ñu tam ñu rafet lu loolu bu baax a baax a baax baax di ñaan yàlla feebar bi yal na ko fi yàlla jële ba ñu mun a delluwaat delluwaat si suñu activité religieuse yi nga xam ne mooy suñu gàmmu yeeg suñu ziyaar yi ak suñu wasifa ak suñu julli ak xadratul juma di ñaan yàlla daal yal na ko fi yàlla yemale di gërëm suñu kilifa yi di leen ñaanal yàlla yàlla guddal seen fan Euh, sëriñ bi ñu ngi lay ziar la ndokkeel baax ci ajuma ji gis nañ ne tey zaawiya bi euh, tëj na gannaaw bi autorité yi joxe ndigal fermé bépp rassemblement ñu aay ko fii ci ndakaaru muy julli juma yi ak euh, rassemblement xadr juma yi ak mboolo yi fu ñuy dajale lu bari ñu wàññi ko ngir feeb bu nga moo feebar bon bi nga xam ne wàcc ci dëkk bi tey àdduna bi yëpp di ko daw muy pandémie mondiale autorité yi biñ ko jëlee am na lu kilifa yi wax. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum di ñaan yàlla ne yàlla na def jàmm ci réew mi te lii wàcc ci àdduna bi yàlla na ko fi yàlla génne mu jeex tàkk tàkk tàkk ñu ngi ñaan yàlla ne balaa la bu wàcc suñu kaw yàlla na ko yàlla jeexal moom rek ko mën a jeexal waaw ñun moom jëppal mooy suñu kër jëppal mooy suñu nekk ku ñuy ku ñuy xam ci loolu la ñuy xam ku ñuy gis foofu la ñuy gis ku ñuy dégg ci loolu la ñuy dégg waaye nag ci ndigal la ñuy dox ci ndigal la ñuy dox te ñun ñu ngi ñu seqat ay kilifa lañ ñun ndigal kilifa la am kilifa ñu topp ñooy wax déet ñu bàyyi te ñëpp ñoom ñoo ñu ëpp xam-xam ñoo ñu ëpp gis-gis liñ gis ba nangu rek ñu ànd ca ñoom lépp luñ gis ba tere itam nag ñun tere nañ ko ànd ak ñoom lii dong moo tax tey defuñ ko fii ci kër baay leen digal la dekkare la te moo am te moo gën itam ci ñun yaakaar naa te ñun liggan rek ci la ñuy dox ñun ci li rek la ñuy dox waaw asalaamaaleykum dana شقنا بك